jóg leen ñu ràññee ko ci def lu baax ak dimbali askan wi Abdoulaye Sylla di ab milliardaire teg ci doon taalibe Serigne Touba àggale na ba mu mat sëkk liggéey bi nga xam ne moo jëmoon ci defaraat mausolée Serigne Fallou Mbacké loolu nag toll ci benn milliard ak genn wàll ci sunuy koppar homme d'affaires bii di Abdoulaye Sylla dajale na lu toll ci ñaar fukki nationalité ak benn ngir yeesal bërëb bi nga xam ne benn la ci àdduna wërngal këpp ndax nag bërëb bi or lañu ko décoré Abdoulaye Sylla bàyyiwul dara ci am-amam ngir delloo njukkal suñu boroom jaarale ko ci bërëb bi nga xam ne dina fi nekkaat lu toll ci ay téeméeri téeméeri at nit ku oyof te wàcce boppam muy Abdoulaye Sylla liggey bu rafet bi ak ndamam li mu ngi ko jaklel askanu mourid akit bu Senegal yeb mo ngi soñu itamit ndawi Senegal ñu roy ci njangalem Serigne Touba. fii moy borop Serigne fall bu mag bi inshallah Touba mom tawfiq rek sak ane mom yalla ñu yalla def rek ñu koy ak jamm ak salam quoi sak ane si bark Serigne Touba si bark yonte bu tedd bi quoi barab bi mom machallah mom machallah alhamdullilah allah alhamdulilah quoi alhamdulilah ñu sant Serigne Touba lu wer salat bi dal ñu ci ciy lol di jébbalu ci sëñ Fallou ndax bi ñu ñëw daaw ak bu ñu ñëwee ren bokkut ñu ngi ñaan yàlla ni sëñ Fallou yeesale yal nañ ko yeesale ñoom njaboot gi. yeesalaat bi kay baax rek Mbàkke Bàlla rafet na am moom kay suñu xol sedd na guy ci yeesalaat bi ñun murit yi ñu ngi ci sant bu baax waaw di gën a bëgg sëñ Touba rek di bëgg borom xabru bi rek. yeesal gi moom rafet na macha allah defaat nañ lépp ci biir activité lépp fépp kay waaw. moom daal yokku rek yokku rek yokku ca kaw daal laa gis. rafet na trop nice na dugg nañ ziar ñaan na suñu soxla ñoo ngi ñaan yàlla rek yàlla li ñu ñaan rek nañu ko may waaw loolu daal la ñu ñaan yàlla.